salaamaaleykum mbokk internet Iba Kane TV yi tey dañuy seet si Cheikh Ali Cissé nekk délégué de quartier ba pare nekk régisseur cimetière musulman de Pikine ñu fekk ko fi mu toog euh, heure bi ñu bëgg waxtaan ak moom yan difficulté la ñuy rencontré lan la ñuy gis fii lan moo xew fii si cimetière musulman de Pikine bi nga xam ne tey euh, defoon nañ ci désherbage boo xam ne bu mag a mag a mag mois weer yële ñu génn Cheikh Ali nuy naa la ziar naa la. Euh, شيخ بمان لي شر باخ دي لا فاي نيو اوسي دي نيو نييب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دي سانتار يالا باخا باخا باخ دي جي بات نيول ماك لي سلام سانغو باسر كونين نون نوي شيخ علي سيسي نيك كونزرفاتور ريجستر سيم سيميس فال بو بيكين يالا ناتو نكو اوسي خيولول نكو nekkal aussi délégué de quartier gazel est dans la commune de pikine ouest mhm. muy quartier bi nga xamne mo bot segui maa ngi nuyu réew mi yëpp. di la mhm. jaajëfal. waaw mhm. ah, moom barab la boo xamante ni bii je dis que ay sëg la. ay armel la. Mhm. armel du marché du centre commercial du business. ndax ñii fi ñëw. seen yaay mbaa seen baay mbaa seen doom mbaa soxna mbaa ku leen jege moo fi tëdd. te ñoom ñu tëdd fii aussi nekk ay faris. ndax am nañu mujj gu du ñu ay ragal.

ak noppi ak noppi waaw ak noppi quoi mhm. parce que aussi kii ñëw ñaare dafa jaxle mhm. ah, ñàkkale dafa metti mhm. mais yow mi fekk góor góorgóorlu ànd ak moom ba ajoom faju man nag maa fi nekk avec les deux fossoyeurs muy le ak Zenga ñu ne wooy les les jumeaux ak doyen ñoo fi nekkandi waaye nag man mii aussi ak sapeur-pompier la profession la ma suma sóor na liggéey ci barab yi nekk xel di fi ñëw

fële mooy bakkan fële mooy bànneex mooy seytaane fële mhm. mooy àdduna mais fii mooy barsax mhm. fii mooy dal lay tranquillité te it li ñu yàlla nattoo ci fii waaju baax ak yilimaanu jàkk ay grand notable de vrai Pikinois mhm. amul fenn xool na grand Jio Mbaye te xam ne bu ma sànni yoo Pikine samedi aju Pikine ne rii ba géej waay ah alaaji Maguette wàllu grand Jio Baye Mandaw alaaj Senghor Samb na fi mieux hors pair Samba Bour ah cër ñu baax fi tëdd te teraay bi aussi kër mënu waat ne du ci topp li ma fi jàngati daal mooy da ngay gën a gëm dee ndax toujours ku am bakkan dala fi romb ñu dugal ku amul bakkan ñëw ñu dugal te tous les jours kan ñëw tous les jours ñu jejj chaque jour ñaata koor ngeen di accueillir bon fes bi day gën a hmm. xam nga autant on disait néew parce que bariwul mais léegi on doit dire bari bari ndax bari waay hmm. tous les jours kan day ñëw benn jour ñuy xëy ba wàcc xam ne tey kenn ñëwul. Hmm. ma marqué ci registre bi. Hmm. ah ne tey kenn ñëwul. Hmm. te ko xam. te loolu amagul. amagul dañu xëy ba wàcc rek xam ne tey gan ñëwul mais tous les jours gan lay ñëw. di ngeen dem ba 6 7 8. 8 9 barem bi am na ci jamono yi Covid bi euh, am na bés boo xamee moom battre record bi. ba ñaata ñu ngeen presque 25 heures dans une journée. Ah, boobu moom la nga dem ba. Euh, les fossoyeurs laa ci kaaf. ah même ñi ànd ak ñooñu sax di jën si ñoo ci bu jàpp. waaw fa jàll fi jàngate mooy. Euh, xaw ma nu ma fi mhm. mais su ma fi ñëwoon du baax mhm. ndax sama lépp la yokk jëm ci yàlla parce que fii laa gëmee waxu àdduna daw la te loo daw doo ko dab mhm, ah, fii laa gëmee waat ne aussi yàlla mi ngi sàkk boo jëm ci moom moo lay gàttandu fii laa gëmaat ne aussi biir ba la yàlla sàkk bi biir bàmmeel lu ci bëgg nañ ko ci tawal aussi jàngat naa ci aussi màgget yi nga xam ne dañu dem ma latikaaf màgget ba tey ñu ngi jël seen wayjur wayjur i ah, Iba wayjur morom dégg la waaw képp ko mooy jur mu jiitu kan lañ ci njëkk denc dégg dama dégg benn jigéen bu ñu tudd Maymuna Fall lañ ci dégg en 1958 loolu wër na wala amul waaw wër na dañ ne Mayna Fall mauritanienne Mayna Fall jigéen a fi njëkk denc nu mu tudd nga ne Mayna Fall Mayna Fall ah dëkkoon fii ci ci ci ci bëru xurunaar mhm. les gens sax disaient que Sadda Ndiaye nekkoon un premier mais jigéen moo fi njëkk ñëw mhm. ay seex topp ci mhm. te ci ma wax loolu muy xam-xam wér moo boota ami mu El Hadj Matar Niang un grand notable. Hmm. yàlla na ko yàlla fayal. en 1958. en 1958. Hmm. mais armée yi ñu ko créé en 52. 52 dañu ko créé. Hmm. fekk seen aliment mu lay wax na ci. ah xaacu li bidéew a ne pig la ko yàlla jagle muy a ah Thierno Seet Nourou ne. fii suufam dafa woyof am yërmande. fële mooy xalwaar le bâtiment jour la. fële. waaw ah, mooy mooy xalwaar. mooy xalwaar. njaay jëm gis ma gis foofu. benn mausolée mausolée boobu kuñ fa denc. waa kër Cheikh Oumar Foutiyou la. Hmm. ki leen boot mooy imam Anne nekkoon Ikotaaf. Ikotaaf tamit. ah ni yaa Abdou Diouf ma nga fa. 111 hmm. ans. 111 ans dafa ah, dafa déglu Thierno Seydou wax ci barab bi. Hmm. moo tax mu jàppul fi kër. ndeysaan ah foo ko denc. ah Alane Ndiaye dem. waaw foo nañu ko denc quoi. Ah, ñu baax fi tamit te beneen bi eh, li fi nekk ci rubé ci rasul nga xam ne seen maam yàlla mi sàkk mu juri ci moom ak i maleekam digal lu ko rasulullah sallallahu alayhi li Hmm. boo jógee fi jëb ba fële hmm. heure bi ci rasoor nga fi tëdd te it hmm. iba lu waaye xamul bu ngi ko weddi dëgg la loo jàngul bul ne amul fi amuñ ci expérience bo xamni ñu ko ko yàlla bind mbedd ñaaw jikko la am na ci barab yo xamni ne yàlla baaxal fii bu doon taw nga taxaw taw bi jëlay wër ay do waxi mbedd beneen affaire amna fi nga amna fi barab yo xamni bu doon taw nga taxaw fa taw bi jëlay wër fi ci armée yàlla baaxal amna ci barab yo xamni dama la lay chance barab bu kay la du jaloo ñaan loo fa dagaan da jëkkul loo fa ñaan yàlla ñi fi ñëw ñëpp ma ko fa leen yóbbu ah ñoom Baye Thierno Moussa Aw mhm. ah alaaji alaaji ah, Ousmane si Thierno Umar lii Chérif Diékou fi dëj mhm. na ko ñekkal sa taa si ñëpp bar sax Thierno Umar lii moo tëdd nii ci bunt bi ah Baye Malick Sall Thierno Omar lii ah moo tëdd nii ah mhm. ah da ngay toog di man ci réew mi ñëw di ñaan ci barkeem barabu ñaanu kay barab la boo xam ne képp ku xamoon li fi yàlla def doo fi gëj ndox la fi yaan yàlla

dégguma sama yaay la sama yaay mhm. ah, trente cinq ans yaayam waaw ñu wutal pour gas gis yaayam parce que bi wax tal waa ñu yuuxu ne sama mère ñu ko ah lu ma doon liggéeyal yàlla ñu mu ne ko mu doon joxe ñama kii mère waaw dara sikul ci moom parfois bi sax mi doon le waaw ah, daf ne hmm. lay dog gaa di ñëw guddi di sulli loolu ba gëj fi wala bon je touche bois euh, hommage aussi bu le comité cimetière. Mhm. foofu sama suñu subarmel. Mhm. bi ko créé ak tay je touche bois amatul sul tulli amatul mhm. te li ñu bolé ñu club club bi moy dëkk wuñu dañu war fi fi gën un club comité cimetière. Créer le front pour l' ba yokku nañ ko. yooyu amatu fi tey. Je ngi la quartier j'ai fait l'armée pour le canal pompiers L'autre fonctionnaire, c'est le commandant. Tout le temps, on est là, on fait la ronde. Mhm. Aussi, Adrame de mhm. hein, que bataille. le commissaire là, il quel Parce que je ne Tout le temps, ils sont là avec agents. Moi, je suis Extension, est est-ce que vous Bon, extension, occasion aussi pour le président de la République. Hmm. Hein? Le président hein, Ah, moi, je suis milliard

Mm-hmm. ne dana am parking de soixante véhicules ci buntu ba. dana am morgue dana am jàkk ak bureau ca buntu ba. Mm-hmm. mais fële amatul tabax. Mm-hmm. ay yoonu yaatu moo fay am. ça sera numérique et numérisé. bu ñu jëlee sa mbokk cent ans boo ñëwee bu ñu bësee bu toog rek di numéro temps la comme bàq ya. nga dem gis ko orto bi day ñëw ba ci biir dootul am tabax fële. Pierre Tomba rek quoi. Ah, bon euh, euh, xam nga ne daf ci am loo xam ne. au combat c'est la télécommande. jàpp nañu heure bi ne fekk ñu jox ci caabi sax. ko na. canalisation onage bi tojoon moo defaat effet foofu mhm. ñu koy woddaat mhm. waaw xam naa daal yàggatul quoi xam naa bu ñu ci yeggee nañ ko baax nag mhm. front suma suufeek suma remel ah les communicateurs vous les journalistes ah, Iba yéen yéen yéen combat seen ah, tout temps yi ngi ni ñëw eh, le conseil communication ndeysaan kooku ah. fekkul nga fekk mbaa paala jóg bu fekkul ah ñoom Baye Papale et on, on, on, a, on, a, on a un comité international. Mhm. Il y a Papala qui au Canada, mm -hmm. à la DDG, qui est Ils sont partout. Ils, sont, partout. Ils sont partout. Mais d'où là-bas, il y a tout babi. Moussoul feuille, musul moussoul wow, moussoul wad, guette tout babi. Là là, c'est mystique voilà. Xam nga olof dafa ne. Hmm. Ndox bu yàggee sal jël jikkoom. Waaw. Ci mu tiim la, ci nu wër. am na ñoo mais xale ba léegi garab bi nii la mu sabel. am na sax bu nu mosaan jàmbar bi metti bu ci wéyee ci doom yëy ko. Euh, macha allah garab gertubaab bii wax nañu sax dafay suuxardu mën naa guddul fan lépp a ngi ci ñemeer mel ba ci yi saveur bi am fii ci barab yi ak guy gi amul amul amul ci biti te dana rafet lii ba ah fii fii barzaq la fii armel la ay sëg la ay sëg la te à l'aise te bëkk le grand Samassa yàlla fi yàgg ci yoon Samassa ah kenn ceerno kenn Samassa oh, oh. Ah, Bamba maa ko recevoir fii ci barab yi ba dafa teraanga jurëy wax wax jurëy te Bamba ci benn jumaa jàkk sama sama sako firi khalifa dakil mo sako firi sa war ah seigne bay sima tour fi cheb bakrim si mourabit ah cheikh tout tay sont là té gaay bu ñu dugg sax bu ñu nga xamé ya am flan ni ki wa bu barab bo xamé dal wax ni yalla barab bu am barké la barab bu doy war mu nek un carrefour bo xamné mo meun université ni ngay fi jangé fi mako ko mëno ko jangé fenen ah fi dal ah oui oui oui mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais mais

àndoon fii fii fii. ñoo boole seen bopp waaw voilà ñoo boole seen bopp waaw. jërëjëf waaw jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla fay ñu quoi ah voilà voilà voilà yàlla yàlla fay ñu quoi. looy tàggatoo. waaye sant yàlla sant yi nga xam ne xam nañ leen mbaa xamuñu leen ñu doon ñaan def seen ñaq ci barab yi fii nga boot néegu béy la woon bon volonté eh, ko def daal ay kaamil daf ko daf mhm. eh, ko salle d'attente daf ko jàkk chaise yaa ngi ci biir le bureau là dañ ko équipé y a une machine y a des fauteuils Il euh, y a la salle fossoyeur, il y a la même si fossoyeur euh, c'est des contractuels de la mairie. Mhm. mais bu ko a mhm. ah, de famille. Mhm. fi avez euh, bu dara xewul seen gens ah, ils sont là sax engagement mon à travers waaye dawlu yi quoi. xam ne un jour dañu leen fekk quoi yëpp. Cheikh Ali. Euh, jërëjëf sant euh, ndax ku yokkul wàññi. Mhm. ni nga defee ci baax. ndax nit ñi xam ne fii aussi yaay ni mel bàyyi jabar nga indi ko fi sànni ko fi. dañuy ñëw ah moo tax de temps à autre ñu ne ay ay ay. jàng yaasin yu bëri ay ay am na fi bëkk démb par la canada mhm. si Omar Tall mhm. ñaari njiitu ñëpp ñaari suñu bopp maa maa ngi sant yàlla daal sant réew mi yëpp waa wax dëgg yàlla garab gerte waa bi jaaxal na ma de ah, am na ci loo xam ne Iba kenn du ko wax am loo xam ne du waxi pénc ndax boo ko waxee ñëpp dégg ko mën naa dingat kenn moo wax joo ko ko dingat al ko waxal te ñëpp jàpp nañu yéen waxal gars yi jël si jëlee si waaw maanaam maanaam maanaam garab gi daal moo gën bañ ko ñam toog fii ci ker gi moo gën bañ fee toog waaw beneen affaire la quoi wax dëgg yàlla yàlla yàlla fe jàmm xéwal kontaan naa jërëjëf jërëjëf daal nañu yàlla gisale merci au président de la république Macky Sall merci ak ñu si jàpp ñëpp merci jërëjëf sama xarit Babacar Mbaye Bams kenn la ci mburu merci eh, dëgg la waa Sénégal bu leen di fàtte fii ak mes fossoyeurs la sama waaye ngi ne le grand zinga góol la woon ah c'est un grand gardien mu dëddu àdduna ñëw fii zinga zinga nuyu naa la zinga ngi nii la fii góol la naa la ñu ngi lay sant. sa régisseur wax na lépp. waaw wax na lépp daanaka wax na lépp. waaw bon foog ñu xaw ci wax tuuti. Mm-hmm. cimetière pikin wax dëgg yàlla bëri na coow lool. Mm-hmm. mais nit ñu baax ñoo fi tëdd. dëgg la. dellu di gërëm Ablaye Cimbo. Mm-hmm. Sidi Sarr. ak ñi fi ne ñëpp. dëgg la di leen ñaanal yàlla ñii yàlla xaral àjjaleen. amiin amiin te jéggal leen. Mm. ci barke alxuraanu karim. ah sonn nañ fi de wax dëgg yàlla. dëgg la ñun xàmmetuñu suñu njaboot. doogatuñu suñuy njaboot. bu ñu ñëwee sept heures la ñuy ñu ñu génne huit mhm. dañuy sonn bu ñu feebaree sax fii lañ fii la ñuy fajoo fii yàllaa ñuy dimbali mhm. wallaay la zi dematuñu ngénte mhm. dematuñu dëj dematuñu séet ndax lu dul defar néegu yàlla yi fii ñu bàyyi ma ñoo xam ne ne génn nañ àdduna ñu para préparé seen néeg dafa dafa seen néeg yi yàlla na yàlla yërëm leen te xaaral àjjana te yàlla def Sénégal jàmm yow yow ñu di gas lan nga mos a jànkoonte nga gas rek lëng mu ci jàngut non loolu loolu moom wax dëgg yàlla ay nit ñu baax rek a fi tëdd wax dëgg yàlla ay nitu wàlliw rek fi tëdd mhm. nit ñu baax a baax di ñaanal tamit eh, eh, directeur mhm. yàgg sonn na trop pour ñu pousse armée dem na Macky Sall wax ko mhm. ko at commissaire Ba at kii nootu Abdourahmane Sarr waaw ñoom ñëpp jàpp nañ ci armée yi ñoom eh, ñëpp jàpp nañ ci pour ñu pousse non gos yàlla moo la koy yombal yow jàngoo de waaw jànguma ko nag mais yàlla moo la koy yombal nag armée ku fi ñëw rek mhm. yàlla moo la tànn doo tux doo naan mhm. doo def lu bon mhm. nag yàlla mooy tànn dugal fii comme imaam ni mu koy tànge loolu ñu ngi siy santaat yàlla bu baax a baax a baax a baax waaw parce que nit mënoo di gas di def lu bon noonu mënul nekk parce que taay booy gas yàlla am na lu mu la may yamal xeyam ëllëg nee na kii gaskat ak kii sang ñëpp bu nu maanoon noppi àjjana ak seen i njaboot man maa leen koy dikk. jërëjëf loolu man maa leen koy di wasalaam. jërëjëf Senghor yàlla yàlla def jàmm. yàlla na yàlla gisal waat amiin amiin def jàmm.